أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey noo ngi ci suratul maida ci kàttanu borom bi ñuy jël tey aaya 61 62 63 mu nekk ñetti aaya ñetti aaya yoo xam ne liñ ciy jële comme njàng sunu borom di ñu ko ci jàngal bi ci njëkk mooy wujudu munafiqin min alyahudi ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil madina li ñuy njëkk a xam mbokk yi tey ci sunu aaya yi mooy ndeke ci jamono yonent alayhi salaatu wasalaam ca dëkk boobu ñuy wax madina al munawwara ndeke yàlla dogaloon na yonent bi dundoon na fa ak ay naafiq ndeke kon naafiq yi bàyyiwuñu ba yonent bi faatu ñu créer seen bloc di yàq diine waaye déedéet ndeke ca jamono yonent alayhi salaatu wasalaam la naafiq yi amoon moo tax alquran wàcc doon leen dénoncé bal sax sunu boroom subhanahu wa taala dafa wàcce ci ñoom aw saar pour leeral ñoom ñooy ñan ba ñu tuddee ko suratul munafiqun kon ndeke naafiq yi dañoo amoon nekk ay yahud dugg ci biir jullit ñi ci jamono yonent alayhi salaatu wasalaam ca medinatul munawwar loolu ndeke aaya yi tey dana ko leeral nekk sunu kanam waaye dana njàng pas-pasu naafiq ak lan mooy naafiq ak naafiq ñaata xaaj la lu njëkk mooy ak naafiq mooy feeñal ngëm nëbb kéeféer soo ñëwee ci jullit ñi wane ngëm yàlla wane bëgg yàlla bëgg yonent bi wane bëgg lislaam ndeke ci kaw kese la ci biir nag ak kéeféer gu ñuul kukku kukku kukku nekk goo xam ne daanaka sax danga naan day bax bay wala ngaan di tuuru mbokk yi boroom xam-xam yi nee nañ naafiq boo dajeek moom kanam bi kanamu Abu Bakar la yor waaye xolam xolu abu jahlin la moo tax ak naafiq bon naafiq ñaari wàll la an nifaaqu nawayni naafiq ñaari façon la benn bi xaaj bu njëkk bi day génne nit ci islaam yuxriju min al milla beneen bi du la génne waaye dana la sëf ay bakkaar ñaar yépp nag ñoo jaram mooy tandiku ndax benn baaxu ci am na lenn ci ay melokaan wala ay jikko wàññi rajo bi tuuti soo ko bi def amee rek wala nga mel noonu dangay nekk naafiq bu mat sëkk sëkk sëkk sëkk soo ci amee benn nag ci yooyu ñu wax yëgal ne yor nga melokaanu naafiq yor nga jikko naafiq boo matalee ñeent yi nag kon léegi yow naafiq complément nga bu ma sëgg loolu mooy lu njëkk lu ñuy jàng tey ñaareel mooy bayaan istihtaarul yahud wa adami mubaalaatihim bi irtikaabihim aljaraim ala niya daneen jàng borom bi tabaraka wa taala leeral gim nu leeralal nëbbug yahud yi ak seen bañ a faale bàkkaar moo xam dafa feeñ moo xam dafa nëbbu lu leen neex dañuy def waaw bayaan yàlla ni leeralal istihtaarul yahud mooy nëbbu gi nu nëbbu dañoo mën a nëbbu mën a làqu mën a def ay pexe waaye waadamu baalaatihim ak ñàkk a faale bi ñu ñàkk a faale birtikaabihim aljaraim bakkaar yu ngand yi ñuy def ak musiba yi faale wuñ ci nit yëguñu sax ne ñoom dañuy def bakkaar lu neex la ñuy def seen xel lu mu leen jox ci wàllu dund gi rek yahudi programme nañ pour dund ko moo tax gis nga daanaka kaw suuf mbon gi fi nekk bul am looy tiit wala looy ragal yahudi yi ñoo ko programmé lépp loo xam ne ak yàq la tey ci suuf siinu ne ci lu nu yëg ak lu nu yëgul programme yahudi yi la ñetteel mooy qubxu sukuutul ulama anil munkar beneen jàng mbon gi yàlla mbonal noppik boroom xam-xam yi ci bañ a wax dëgg loolu sunu borom subhanahu wa taala xase na ko yahuud yi waaye nasaraan yi dugg nañ ci waaye jullit ñi dugg nañ ci ndax xam-xam yàllaa ko baaxe nit yàllaa koy baaxe nit mais ba mu ko ko baaxee ba pare dafa jël ci moom responsabilité ne ko li nga xam da nga koy xamle wa is axada allahu misaaqa annabiyin fàttaliku leen ba yàlla jëlee contrat ci yonent yi mooy lan la tubayinunna linnaas di ngeen leeralal nit ñi ma nuzila alayhim li yàlla wàcce ci ñoom kon xam-xam kóllëre la loolu ñu naan amaana sunu borom subhanahu wa taala moom moo ko may borom xam-xam yi moom moo leen ko yenkewal may leen ko jagleen leen ko bi sart ñu leeralal jaami yàlla yi li yàlla bëgg ñu def ko ñu leeralal leen li yàlla bañ ñu bàyyi ko sori ko danañ jàng tey mbonug yahuud yi mbonug boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo noppi ci lu bon walla sëgg ci nit ñi di def lu bon ñu ne pat walisa qaala kasirun min as-salaf fi hadhihi al-aya asaddu aaya wa axtaruha ala al ulama mbokk yi ci sunu ñetti aaya yi nuy jàng dinañ ci jàng tey aaya boo xam ne aaya bu gën a tar dëgër keng wàcc ci kaw boroom xam-xam yi aaya bii la dinañ ko jàng bu soobee yàlla dinañ jàng lu tax boroom xam-xam war a wax lu tax boroom xam-xam warul noppi rawatina nag boroom xam-xamu diine rawatina nag diine lislaam képp koo xam ne yàlla baaxee na la nga xam ci yow waratoo noppi danga war a nekk tors buy leeralal nit ñi ba ñu xam fu ñu teg seen tànk mu ngoog waaye waroo nekk koo xam ne da ngay noppi ak di ut poñetu àdduna yonent alayhi salaatu wasalaam nee na al ulamaau warasatul anbiya wa inna al anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al ilma fa man axaza bihi axaza bi xazim waafir sallallahu alayhi wa sallam nee boroom xam-xam yi ñoo donn yonent yi yonent yi bàyyiwuñ fi dërëm bàyyiwuñ fi alal liñ fi bàyyi mooy xam-xam yonent bi nee na képp ku jàpp ci cër boobu jàpp ci cër bu rëy te mooy xam-xam keroog ba yonent bi génnee àdduna abu hurayra dafa génne dem marché ba bi mu amee ay fan ba madina dalaat activité yi tàmbali nit ñi di fàtte fàttelu te mu ñu ñoo fàtte yonent bi abu hurayra génn jëm marché ba ñëw fekk nit ñi nekk seen njënd ak njaay mu ne leen ñu ngay séddale alalu yonent bi daw leen gaañaa nga ca jàkka ja ñu ngay séddale alalu yonent bi gaa yi fëx jóge ca marché ba jubal ca kër yu ñëw fekk jàkka ji gaañaa ngi toog def ay groupe ñee ngay jàng ñee ngay tudd yàlla ñee ngay julli ñu geesu gis Abu Hurayra taxaw seen ginnaaw ñu ne ko waaw ana alal ji ñuy séddale anamu mu ne leen gisoo ñee toog di jàng ñu ne waaw mu ne dem leen yonent bi loolu la fi bàyyi dem leen ngeen jël seen wàll kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi li mu fi bàyyi mooy xam-xam ak borom xam-xam yi yonent bi nee na al ulamaau warasatul anbiya ma lam yuxaalitu sultaan wa yudaaxilu dunia fa ida xaalatu sultaan wa daaxalu dunia faqad xaanu rusulu jamian fahzaruhum ki yàlla yónni woon ci ñun nee na boroom xam-xam yi ñoo doon ni yonent yi boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi mu ne feek bëgguñu nguur ak duggantewuñ ak àdduna feek bëgguñu nguur feek duggantewuñu ak àdduna boroom xam-xam bu la gënee bëgg àdduna sori ko waaw borom xam-xam bu la bëggee bëgg alal gën laa bëgg jigéen gën laa bëgg oto bu rafet gën laa bëgg kër gu rafet bee boo nga sori ko waaw ndax war na yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk bëgguñu àdduna duggante wuñu ak nguur yonent bi nee na suñu bëggee àdduna duggante nguur na ngeen leen sori ndax war nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokki jullit yi ci tënk bu gaaw ñetti tomb yooyu mooy sunuy tomb aaya tey yi nga xam ne moom la ñuy jël noo ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala ndëgër laay ba sunu làmmin du génn yàlla nee na yonent bi nee na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يأملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون سنبرم jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu borom màgg gi borom asamaan ak suuf dañul di ñu leeralal ci aay yi nekk sunu kanam mbonub yahuud yi wa bayaani xubusihim muy leeralal seenug salte ak nanu mel mu ñuy tere ñu aliyeeg ñoom mu ñuy tere ñu yor seeni jikko ndax seeni jikko jikko yi naa feq la sunu borom ne wa isa jaaukum ñoom sax de lanu dëkke mooy bu nu ñëwee ci yéen jullit yi naam mu ne aaya bi wa isa jaaukum mu ne maatuufun dañ koo toftale ala qawlillahi taala ci waxu yàlla jim waxoon barki ne biñ doon tafsir wa iza naadaytum ila salaa bu ngeen wootee julli ñu jàpp ko caaxaanukaay naan waa mbaam yi lu ñuy ŋaax wax ji yàlla wax na naafiq yi buñ ñëwee ci yéen wax ji ci loolu la topp mu ne wa xassa bi haadihi sifaat sunu borom jagleel melokaan yii munaafiquuna al yahud naafiq yahud yi wa hum mu ne ñii min al jumlati man ittaxasu diin huzuwan wa laiba boo leen di xool da ngay fekk ñoom la yàlla regroupé ci benn mbooloo boo xam ne ñooy jàpp diine fo ak caaxaan moo tax képp ku ngeen gis ci jullit yi mu jàpp diine fo ak caaxaan yor na jikkoy naafiq wala mu nekk naafiq wala mu yor jikkoy yahud ndax diine kenn du ko fowe diine kenn du ci dugal caaxaan diine ak fo ça fait deux ndax diine dafa ñëw pour jële fi fo kon képp koo xam ne da ngaa bëgg a fo dugal ko ci diine yow dangaa yor jikkoy yahud waaye naafeq nga loolal la sunu borom adressé sunu borom nee na wa isa jaaukum bun dikkee ci yéen qaalu ñu ne aman naa gëm nañ gis nga naafeq yi bu nu dikkee ci biir jullit ñi lan la ñuy déclaré ngëm wa isa jaaukum qaalu aman na saa yu ñu wëree ba jeexal rek bun dikkee ci yéen jullit ñi ne leen ñun danoo gëm yàlla mu ne dañuy fen gëmuñu lan lañ bëgg mooy yuridu gishakum dañ leen bëgg a wor fi majalisikum ci seen toogaay yooyu ngeen toog bëgg nañu toog fi ngeen toog di déglu seeni waxtaan xam lu ngeen di diisoo xam lu ngeen di nas moo tax ñu ñëw toog soo leen ne lu ngeen fi def qaalu amanna ñu ne la ñun dañoo gëm comme yow fekk du dëgg qaalu amanna yàlla ne wama amanu gëmuñu walakin waaye li wërte mbir li fi nekk mooy yunaafiquuna ay naafiq lañ laa xayr amul leneen buñ la wor bul xool seen yére yi bul xool seen melokaan bul xool lañu déedéet xamal ne ñi ay naafiq lañ pour nga noppalu faqad daxalu bil kufri ci kéeféer lañu yendu ca la ñuy fanaanaat kon mbokki jullit yi du ñu deñ di wax di leeral sunu kéemtalaayal kàttan ne alquran bi du téere barkeelu du téerum njabar du téere bu ñëw pour ñu koy naan wala ñu koy jàmb wala ñu koy sangoo téere bu ñëw pour leeral sunu dund biir ak biti pour nu xam fu ñuy teg sunu tànk téere boo xam ne daanow pour ñu dund ko mu nekk système de vie gis ngeen fukki fan yi mujj yi ci koor gi liñ fi jàng yëpp ay àtte la liñ fi jàng yëpp ay yoon la ay luwaa yu yàlla di wax tey ñëw nañ yàlla dinu woon ñii mbubboo lislaam te duñu ay jullit nekk suñu biir nekk ay naaféq lii la li moo yàq lislaam tey mooy naaféq yee bëri waaw di woote wu ngëm te gëmuñu borom bi ne wa isa jaaukum bu ndikkee ci yéen qaalu nu ne aman naa ñun gëm nanu borom bi ne du dëgg wa qad daxalu dugg nañ bil kufri ci kéeféer wahum ñoom xar xaraju bi ci lañ génn ci lañu dugg ci lañu génn ci lañu yendu ci lañuy fanaan ci kéeféer gëmuñ waaw lu tax lan moo tax daxalu fil kufri lu tax ñu dugg ci kéeféer mooy annahum naka ñoom maa amanu xattu musunoo gëm walam yu xaalitul iman qulubahum ngëm musta dugg sax ci seen xol tarfata ayn lu toll ne seconde lu toll ne xef ak xippi yàlla nee na ñii musuñu koo gëm waaw musuñu koo gëm fahum daxalu kaafiriin bi ñu ñëwee ne ñun dañoo ay jullit lañ bañ ñëwee di dugg di tuub naan yonent bi lan moo nuy dugal yonent bi naan leen wax leen ashhadu an laa ilaha illa allah bañ ñëwee di dugg kéeféer la ñu indaale ba ñu waxee baat yi dugg gis gaa yi xatal nañ leen ñuy génn lu ñu yóbbaale kéeféer guñ fi indi woon kon mosuñoo gëm ah, li moo nuy wan ne alxuraan mooy dëgg parce que alxuraan moo yor moo yor xol yi yu sew sew yooyu di nëbbu ci biir nga xam ne kenn xamu ko ku dul yàlla benn waaye mas naa ñëw rek sa mun naa ñëw rek sa waaye yor yu- yor yëre yu weex tal mbaax ne bu weex kaala gu weex semis bu weex grand mbubb caaya marakis bu weex kurus sikkim bi sax mun naa weex ñu tëll nga gis gaa yi ñu jóg taxaw ku nekk di nuy ñaari loxo melokaan boobu lan la lay jox jullit ku gëm yàllaa ngi wala yàlla mu ne du jullit ñun mënuñu xam kii du jullit kan moo mën a juger ci ñun kooku kan ah waaye yàlla moo ne kii bi muy indi bi muy ñëw fii kéeféer la indaale bi mu ñëwee toog fi gisul lu ko deex muy génn di ñibbi kéeféer la yóbbaale moo tax alxuraan bi ko jullit ñi bàyyee rek la jullit yi alko parce que alxuraan moo ñëw di génne lu yu lëndëm yooyu ci biir xatta yonent bi alayhi salaatu salaam ñooñu mënu leen a xam waaye yàlla moo ko wàccee ci moom saar ne ko ñii ñëpp ay naafeq lañ yonent bi génnul àdduna lu dul mu woo Huzayfatul Yamani daal di koy jox listu naafeq yi diw naafeq la diw naafeq la diw naafeq la ba naafeq Medinatul Munawwar yëpp jeex tak allahu akbar Omar daan bàyyi ba guddi ba ñépp tëdd Omar ñëw fëgg buntu kër Huzayfa su Huzayfa ne kokkan la mu ne ko Omar amirul mu'minin mu ne loo fi def Omar Huzayfa dimbali ma rek kaay dama la soxla bu Huzayfa ne karaj buntu kër gi ubbi taxaw ne ko lan la mu ne ko dama lay laaj ngir yàlla ndax sama tur nekkul ci liste naafeq yi mu ne ko yonent bi dafa waxoon ne tur yi fi nekk tur yi ma jox bu ma ko wax kenn Omar demal demal yow xam nga ne bokkoo ci demal xalal loolu Omar di tuumaal boppam ndax bokku ci ñun nag kon ah su fekkee Omar mooy tuumaal boppam ba guddi jot mënta nelaw mu dem kër waa ji nga xam ne moom la yonante bi joxoon listu naafiq yi mu ne ko ñii ñëpp ay naafiq lañ Omar nan la daan def su bëggee xam kii naafiq la wala du naafiq su waa benn waay faatoo Omar day ñëw ci jullee gi taxaw xool sàppe yi xool mbooloo mi nii su gisee Huzayfa rek mu taxaw su gisee Huzayfa mu ne ana Huzayfa ñu ne ñëwul Omar jël ay dàllam ñibbi ndax Omar day xam ne kii ci la bokk gis nga te naafiq dañ ñoo tere ñu jullee leen buñ dee ndax yonent bi moo ne yàlla moo ne yonent bi ñii ku ci deewati bul taxaw ci bàmmeelam waxuma laa nga koy ñaanal waxuma laa nga koy jullee wala taqum ala qabri bul taxaw ci bàmmeelam kon sunu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo nu wàcceel alquran muy dénoncé naafiq yi nga xam ne bis bu nekk ñu ngi ci biir julli ñi te di leen lor yàlla ne yonent bi ñii di ñëw ci yow di wane ne dañoo gëm du dëgg ba ñu fii ñëw kéeféer la ñu indaale waaw wa qad daxalu bil kufri ba ñuy dugg kéeféer lañ dugge wa hum qad xaraju bi ba ñuy génn tamit ci diine ji di génn ci yow di dem seen yoon ak kéeféer lañ fi génnee kon mbokk yi mbir la moo xam ne sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moom dong moonu mun a wax lii mu nekk dëgg ndax nun xamuñu li ci biir yàlla xam li ci biir moom mi xam la ca biir nag moo ñëw ne ñii ba ñuy dugg ci kéeféer lañu indaale ba ñuy génn kéeféer lañu yóbbaale mu ne annahum ma amanu qatt musuñoo gëm ngëm mësta dugg ci seen xol lu toll ne seconde ba ñuy ñëw kéeféer lañu indaale ba ñuy génn kéeféer lañ indaale mu ne wallahu yàlla aalamu mooy ki gën a xam bi ma kaanu yaktumuna ca lañu nekkoon di ko nëbb yàlla moonu ko gën a xam lii aaya yi dafa leer nañ nañ nañ jarul sax commenté ah wa ida jaaukum qaalu amanna yàlla mu ne du dëgg wa qad daxalu bil kufri wa hum qad xaraju bi ñu defe ne fa la yam borom bi ne wallahu yàlla aalamu moo gën a xam bi ma kaanu ca la ñu nekkoon ñoom gaa yooyu yaktumuna di nëbb lan lañ nëbb ak naafiq lu ñu nëbb mooy ak kéeféer kon bu mu bu mu leen di wor bu mu leen di wor ay yére bu mu leen di war ay jëmm waaw yeneen gaa yi boroom xam-xam bi day wax ne yaram yu ngande ba toll ni ñay njool ba toll nii gëléem xel yi mel ne xelu pécc xel yaram yooyu nit ñu mel noonu bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu leen bu mu leen wor waaw ay melokaan ay mazahir melokaan bu mu war jullit jullit na ko ngëm yàlla jaaxal waaye ay melokaan rek yëre bu weex wala tubéy bu weex wala mbaxne wala sikkim loolu bu mu nax nit waaw ñii dañoo ñëw ne gëm nañ yàlla ne du dëgg te bii du benn aaya rek bu denoo sa naafeq yi du bii kese qaalat il arabu amanna yàlla ne qul lam tu'minu du dëgg mu ne yàlla subhanahu wa taala mooy ki xam li ñu indaale fii la ñu nëbb minal kufri ci kéeféer wal kaydi ak pexe la kum ñeel leen gis nga naafiq yi nekkuñu ñoo xam ne dañoo ñëw ci lislaam rek dugg duggulu ne dañoo gëm waaye mbokk yi liñ ci boole moo doy waar dañoo ñëw nëbbaale ay pexe gis nga chia ci naafeq yi la jóge parce que Abdullah ibn Ubay ibn Salul moo ko indi nu mu tuddati seen chia bu ngand bi ponkal bi ki gars yi di bañ a dégg ah déedéet du xumee ni de moo xumee ni di ku ndaw ca gaa yu ngand ya ci ponkal yu mag ya ki nga xam ne moo ko créé nëbbatu fexe ba tasaare ko lu tax dugg ci lislaam nëbb ak yahud ah ba fexe ba dugal ci chia moo tax mboolem koo gis mu indi ci lislaam dara ñi ci ëpp ñëpp genn wàll gi yépp ay yàqkat lañ ay naafeq lañ dañoo ñëw pour yàq waaye ñëw ñu pour defar waaw ki ñëw ci islaam bëgg a defar jaru muy indi leen ndax yow li nga fi fekk mënoo koo jeexal li yonent bi yàlla digle yonent bi ñëw ne jàng leen ko ci sunna mbokk yi kan ngeen gën mos loo dégg sax benn waaye ne la man sunnit laa tuuti la def defagul sunna yëpp moo tax ndeysaan al imam albani rahimahullah dafa mos a toog rek benn waaye ñëw di ko tagg yow tey sëriñ bi yaa fi raw ci hadis yow yaa yor xeet bi nangam ak nangam rek mu jël suuf rek xëpp ko ci gémmiñ gi waa ji ne ko sëñ bi looy def ni mu ne ko alhamdulilah bii benn ci sunna yi la woon te aw moon occasion nu ma ko dundee te yàlla may na ma ko dund maa ngi nii di ko dund gis nga sunna yi mënoo def yëpp tuuti nga mën a def tuuti même ci sunna askar yi wala yi ngay def ci jaamu yàlla wala wala wala yu ndaw nga def tuuti tuuti tuuti li nga bàyyi kenn oto mënu ko daw avion mënu ko naaw léegi nag lu mel noonu su fekkee ñun sunna mënuñoo def lépp est-ce que jar nañu indi leneen ah xoolal gars yi mënuñoo xiyaamul léegi di julli fay faat mënuñu naafila te naafila la yonent bi indi vendredi bu mujj ci weeru koor ñu takk ay baas takk ay rajo ñëw leen ñëw leen yow sunna biñ la sant munoo koo def nga dem di indi leneen xoolal munuñu julli xiyaamul layl nga gis ñu naan la ñaari ràkka yii soo demee ngay tari juróom-ñaari innaan zalna fukki xul wa allahu soo paree nga def yel ko soo paree nga def nangam ak nangam ak nangam ak nangam ak nangam yow li li la yonent bi indil munoo koo def nga dem di jël leneen ah mbokk yi la yonent bi indil munoo koo def ngay jël leneen loolu nag ci lépp la ci lépp ci lépp bu la neexee nga dem di ngay gis ku bàyyi jaamu yàlla boo xam ne bii dafa leer naa ñi texte la mu ngi nii yàlla dog cee wax wala yonent daf cee wax wala yonent daf cee wax wala yonent ko doon def nga gis mu bàyyi ko indi ji leneen di ci sonn nag de mu leer ko ne lii du ci am tiyaaba parce que du diine ndax diine mooy lu yàlla wax yonent bi leeral ko jeex na loolu mooy diine leneen loo xamante ne yow yaa ko indil sa bopp da ngay sonn rek waaw bëggal tiyaaba ba nit ñi wori nga ni man damay wor deux mois ramadan bu nit ñi waree continuer ñu ne nit ñi ne wari nañ nga ne non yéen du ngeen ay guerrier man guerrier la cent pour cent man deux mois laay war insha allah bismillah ñu ne la sawaay affaire bi vingt neuf jours la de wala trente nga ne non non non vingt neuf jours ak trente ñun nooy ñi ñoo koy war ñun nooy ñi mais man insha allah bu ma waree deux mois dinaa leen raw dinaa leen ëpp tiyaaba yàlla dina ma baal soo ko defee woor nga wala wooro woor nga wala wooro laaj bi yow laa ko jubal yow soo ko defee woor nga wala wooro woor nga woor nga waaye doo am tiyaaba lu tax parce que ramadan du deux mois benn moo kesan gis nga affaire nu mu simple mi ngi mel ne julli taakusaan ñaata rakka la ñeent nga ni man damay julli trente saa yéen yéen da ngeen a gaaw a sëlmal trop imaam yow gaay mais alma foofu nga julli jëmale fajar julli nga wala julli woo ah julli nga est-ce que taakusaan nga julli doo am tiyaaba parce que julliwoo tàkkusaan jaamu yàlla yëpp noonu nga koy jëlee bu nekk noonu nga koy jëlee soo ko jëlee noonu rek nga noppalu soo bëggee xam jaamu yàlla bu ngay am tiyaaba ak jaamu yàlla boo xam doo ci am dara xoolal jaamu yàlla bii may def kan moo ko santaane lan lañ ci dige jaamu yàlla bii ñuy def nii muy woor weeru koor dañu koo sant ba pare am lu ñu ci dig ah julli dañu koo sant am lu ñu ci dig wala wala xiyaamul leyli bi ñuy naafi la dañu koo sant am lu ñu ci dig wala léegi nag yeneen jaamu yàlla yi nga xam ne nit ñi dañuy xëy rek di ko def foo tourné nga gis nit di ko def ah ku la ko sant te li gën a doy waar mooy té da ngay gis téere boo xam ne liñ ci bind mooy xii la nee nañu nee nañu gese ku ko wax xii la wala ruwiya kan la ah fulaan xiila an fulaan yooyu ay mbir la yoo xam ne nit ñi nañ ci bàyyi xel bépp téere boo xam ne dañ lay wax ne nee nañu balaa ngay jël waxal ku ko wax digle nañ ku ko digle su la nee yàlla nga ni ana ana aaya bi nga vérifier aaya bi waaw gis nga journaliste boobu tudd Tunkara léeg-léeg mu jàpp ab kilifa rek juutal ko ci télé ba mu ba mu ne këcc gurug daanu léeg-léeg mu yenu ab kilifa ba ci kaw asamaan ni ku ndullu ci suuf ndax da ngay ñëw ak sa kaalaak sa sikkim ak sa kurus di di di di yéem a góondi nit ñi ngandal mbubu mu bàyyi la ba nga wax mu ne la fu ko yàlla wax li nga wax nii fu ko yàlla wax nga naan ah alxuraan la mu ne la ban aaya la waaw benn waaye nag ñëw na fa naan faabuduni xaw ma qabla an taarifuni fa in lam takun taarifuni fa kayfa taabuduni loolu yàllaa ko wax mu ne ko fan mu ne alxuraan mu ne ban saar la ban aaya la waa ji am sérieux problème waaw xam nga li gën a dangereux ci nit ci jullit mooy nga wax arab rek ne alxuraan la léegi ñu ne la fan la ko yàlla wax munoo indi saar bi munoo xam aaya bi fu mu nekk te nga ne yow kilifa diina nga yenn saa yi mu jàpp imaam yi am na ci benn waaye benn imaam mu ne ko imaam yi yéen imaam yi da ngeen di yàq alxuraan rek waaw kooku lu mu waxoon mooy nee na yàlla wax na Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa tax ma bind nit ñi su doon Muhammad yàlla du bind kenn loolu alxuraan na ko wax mu ne ko fan la aaya bi nekk mu ne ko mu ngi ci alxuraan mu ne ko waaw d'accord naa mais dama mën nga wax ma saar bi ak aaya bi fu mu léegi loolu du alxuraan yàlla nit ñi bind bi leen yàlla bind Muhammad taxul loolu da nga koy dégg fu ne Muhammad te tax yàlla bind nit ñi da ngay dem ci armeel yi sax nga gis ñu bind ci kaw néew yi Muhammad miim ha miim daal ñu ne doomu aadama mooy sirru Muhammad moo tax nit yàlla du ko lakk ndax yàlla du lakk turu Muhammad yàlla ne la am la anna jahannama min al jinnati wan naas wala loolu du wax yàlla dinaa feesal safara ba mu fees daal yemul ci loolu mu ne dama naan safara ndax fees na yawma naqulu li jahannama halim talaat safara naan ko hal min mazid ah daal damay lakk ay nit nit ñi ñu ne yàlla du lakk fa waylun lil musallin lu muy tegi xur wacca safara biir safara kàmb la safara kàmb la ci biir kàmb gi dafa am xur benn pax bu xóot boo xam ne buñ ci sànnee dara balaa muy laal dara mu am soixante-dix ans ndax xóot bi mu xóot foofu xam nga ñan la fa yàlla dugal jullikat yi jullikat yi juuloobe benn allah wattatoon luñ def ba yàlla dugal leen fa mu ne allazina hum an salatihim saahuun ñi nga xam ne dañuy julli di ko fowee tardeel waxtu wi yàq jàng bi rukoo yi du mat sujjóot yi du mat amul teewlu taf taf dóor mu daanu waaw rapide vir vir vir vir assalaamu aleykum yàlla nee na ñooñu sax waylun laa leen jëmale waylun waylun ci arab ñi jàng arab bu ñuy tekki way nañ naan waadin fii jahannam xur la ci biir safara jahannama ñan la fa yàlla di yóbbu bokk na ci almusallin waa léegi fu ñuy lakke ku julli ku jullee ngi nii yàlla di ko mbugal su fa ku julliwul teewee nag daa mbokk yi ma ne fu ñuy dumaawee ku julli ndax bi muy julli da doon fawee julli gi kàbbar bi baaxul njàng mi baaxul ruko bi baaxul sujjóot bi baaxul wala def na ko mais def ko tardé wala def na ko ni mu ko defee baaxul ñu jàpp ko di ko caw ku julliwul ne tëll xanaa dañ koy buma xëcc kële wala ah kon nag kon ay mbir ak ñuy xaar yu ñu war a bàyyi xel yoo xam ne moo war a tax nu nekk ay nit yoo xam ne day tax kenn du nu nax parce que yàlla li mu wax mooy dëgg lu coow li bari bari bari bari lu la nit ñi wax loo gis mbooloo yeeg kërti kërti yëpp bu la dara nax li la yàlla wax rek mooy dëgg waaw xeer yàgg yàgg ci biir géej gi du tax mu nekk jën xeer rek lay nekk yàgg yàgg yàgg yàgg jën du dugg ci suuf si di daw di fii suuf si bu fi jën teeree rek gaa yi firiir ko waaw du fi dund mukk loolu dafa war a leer suñu bopp mu ngoog suñu borom nee na wallaahu yàlla aalamu moo la gën a xam mooy ki gën a xam bi ma kaanu gaa yi la ñu nekkee yegtu mun a di ko nëbb mooy nëbb kéefér nëbb ak naafeq di warare ay jullit lën fekk gëmuñu dara lañ gëmul ay bandi ay saay-saay yu bon lañ ay franc-maçon lañ ñii ay góor jigéen lañ ñii ay giin lañ ñii duñu tus ñëpp ay yëfër lañ mu nga xoolal tey julli di nekk ay franc-maçon kenn xamul ñaata lañ ci àddina bi waaw da ngay nekk jullit nekk franc-maçon nekk jullit nekk góor jigéen nekk jullit doo xam ne doo julli jullit bu dul julli waaw buñ la waxee nga ni noonu loolu ay formalité la quoi yooyu yooyu du dara non yàlla xol lay fay quoi ñii dañuy wax rek ci kaw rek la ñuy liir bind yi waaye li ci biir egsi wuñ ci li ci kaw la nu yàlla won li ci kaw la ñu Seydina Muhammad indil waaw te li ci kaw mooy li ci biir mu ngoog mu ngoog maa fi lqalbi yazharu fi lwajhi la ca xol mooy feeñ ci kanam waaw li nekk ci xol mooy feeñ ci kanam su xol bi nangulee yàlla rek cër yi nangul yàlla képp koo gis muy jaamu yàlla xolam moo nangul yàlla koo gis mu lànkal yàlla xolam moo bañal yàlla xol moo communiqué nit xol moo yor nit moo tax ñu ne yonent bi ne ala inna fil jasadi mudga iza salaha salaha al jasadu kullu wa iza fasada fasada al jasadu kullu yonent bi neen am na benn suuxu yàpp benn daggitu yàpp bu nekk ci seen biir waaw ñu ne ko nu mu tudd mu ne su baaxee rek nit ki baax su baaxee nit ki day baax su bonee nit ki day bon mooy xool misaal su ma ko doon joxe kenn ci ñun fii bu doon yónni doomam ne ko dawal nga ñëw mu yéex dem def fa deux heures de temps su ñëwee indi yóbbante bi boo ko jëlee ba pare loo koy wax sa tànk yu bon yi wala sa xol bu bon bi pourtant xol bi dawul du xol bi moo doon daw normalement dañ ko waroon wax sa tànk yu bon yi moo tax mënoo gaaw normalement ah du loolu lañ ko waroon wax sa tànk yi ñoo bon moo tax mënoo gaaw waaye duñ ko wax sax tànk yi bon yi luñ koy wax sa xol bu bon bi nii rek nga mel yow ku yow ku bon xol nga parce que xol mooy communiquer tànk gis nga bi nga ko yónnee su xol bi nangu woon yónnin wi da ngay gis mu daw def ko ñëwaat naka noonu nag ci lépp mbokk yi su xol nangulee yàlla rek nit nangul yàlla ñaatoon ngay jàng yàlla di wax mbirum xol ci alxuraan fi qulubihim marad summa qasat qulubuhum kalla barraana ala qulubihim gis nga parce que xol xol sax boroom xam-xam yi dañuy wax ne mooy membre bi njëkk a formé wu ci nit buy judd bu nit di sosu lii njëkk a formé wu nga xam ne day mat xol ci la bokk moo tax yonent bi alei salatu salaam bokk ci ay ñaanam mu naan yow yàlla yàlla bul changé suñu xol yi xatta alxuraan sax daf ñu jox ñaan boobu rabbana la tuzig qulubana yow yàlla yàlla boo changé suñuy xol moo tax xol jara defar waaw arab li tax ñu tuddee xol alqalb mooy dafay wëlbatiku wa ma sumiya alqalb illa li yataqallab li muy wëlbatiku moo tax ñu tuddee ko alqalb parce que nii lay def waaw da ngay def nii di baax ba caag rek mu ne nii vir nga bon nga nekk ci lu bon ba caag mu ne vir nga baax waaw kon defar xol lu am importance la moo tax boroom xam-xam yi di sonn di bind ay téere ci lan mooy defar xol lan mooy defar bakkan ah lan mooy defar nit kon naafiq feebar la boo xam ne ci xol lay nekk su xasee nag sax ci nit kenn mënatul fexe mu baax moo tax sunu boroom jalla jalaaluhu ne ñii lanu nëbb maa ko xam yow muhammad xamoo ko li nu nëbb ci seen xol yi mooy kéefir li nëbb mooy ay pexe mu ne wa haza maana qawluhu taala fi l ayati l ula aaya bu njëkk bi di wa ida jaaukum qaalu amanna wa qad daxalu bilkufri wa hum qad xaraju bih wallahu aalamu bima kaanu yaktumuun aaya bi li muy wax mooy mbirum naafiq yi lay wax mu ne wa taraa nga gis kasiiran lu bari minhum ci ñoom yusaaricuuna dañuy gaawtu fil ismi ci bakkaar wal udwaan ak mbañant gis nga de naafiq jullit bim ne man gëm naa yàlla gëm naa sayduna muhammad gëm naa lislaam moom jullit bi bi mu waxee loolu ci lan la gaawtu def lu baax amma naafiq yi ñoom ba ñu waxee ne ñëw nañ gëm nañ xoolal yàlla lu mu wax mu ne wa tara kasirum minhum nga gis ñu bëri ci ñoom au lieu ñuy gaawtu ci def lu baax waaye lu bon la ñuy gaawtu sunu borom sunu borom du nit te dëgg-dëgg lii waxi yàlla xoolal am na ci nit ñoo xam ne tey pour nga def loo leen lu baax il n'est pas question jarul ngay sonn mais lu bon bul woote billaahi bul woote bàyyil ba ngoon jot rek ba nit ñi ndogu nga indi ñaari baaf teg fii branché musique léegi nga gis mu fees del del del del tegal alxuraan dañuy romb vër vër vër vër xaw fi mooy noonu vër lañu def vër kenn du taxaw dañuy moytu sax dañuy wiiri wiiri lu xaw fi dañuy wiiri koñ tegal musique wala nga indi ay sabar bul woote day fees noonu nag mu nekkee ci lool ci la nekkee lu lépp nga xam ne mbirum naafeq sunu borom xool lu mu wax mu ne wa taraahum allahu akbar mu ne aaya ñaareel bi faqad axbara taala sunu borom moo xabaar wa rasuluhu ak yonentam annahum li kasrati ma yartakibuna min azunub ah li ëpp ci lu ñoom li ñuy sàkku li ñuy def te di ci gaawtu mooy ay bakkaar bakkaar moom amuñu ci sax sentiment dañ koy gaawtu di ko def comme ni julli di gaawtoo di def lu baax ñoom noonu la ñuy gaawtoo di def lu bon waaw wa yaxsuna min almaasi mu ne dañuy nuur ci bakkaar tara kasirun minhum mu ne nga gis ñu bëri ci ñoom mu ne ar ru'yatu huna fii gis gi la yàlla wax mu ne basariya gisu bët nii ngay jàkkaarloog yow ay nit yoo xam ne ci koñ bi ci kër gi ci dëkk bi mbon moo leen gënal lu baax soo leen woowee ci lu baax léeg-léeg ndeysaan léeg-léeg may def conférence wala ñu wax dars wala ñu wax dara wala nga wax benn mag nga gis ku ñëw xam nga acte de présence xam ngeen lool mooy lan lan mooy acte de présence mooy ñëw teg tànkam ci place bi rek daan ne dama dama nag dara dem dem nañ say nañ xoolal soo demee kër ga tus lañ fa def diine bi lañ ragal mais bu dee mbon amul acte de présence toog ba fin tee la ñëw ba pare ba fin la wallahi allahu akbar mu ne da nga koy gis ni ak sa bët basariya da nga koy gis du gis-gis goo xam ne gisu xol la wala da ngay xalaat non da ngay gis dëkk bi nii mbon moo leen gënal lu baax lii ma wax nii ku ci am dut bu ñu ndogoo génneel ay baax sa buntu kër bul woo kenn génneel bale lalal bul sax ut ay seize bul ut ay basang lal génneel baax fi kese teg nga commencé toog léegi nga gis ñaar ñett ñeent su yàggee mu fees waaw soo bëggul gis kenn nag boo demee taal alxuraan doo gis picc bal sax da ngay bu fekkoon ne lu baax loo fay def la da ngay yor micro bi naan ñëw leen mu ngi guddi kaay leen mi ngi guddi doo gis kenn leen du ñëw wala ñiy def acte de présence ñooy ñëw deux minutes ne la damay toggi ndogu dañ maa invité ndogu fële non tey fanaanuma fi damaa bañoon nga mer rek moo tax ma ñëw pour nga gis ma dara parce que xam nañu bu ñu toogee alxuraan bi day dal seen kaw doo mën a nit ñi bëgg ñu déglu alxuraan waaw bu ñu doogee alxuraan bi ci seen kaw la naan vip ay yar la courant la bu ñu lay caw ndax duñ bëgg toog ku mel noonu nag am naa féq la fekk mënoon nangu déglu kàddu yàlla dëgg gi dugg ci yow nga xam foo war a teg sa tànk xoolaatal sa bopp moo tax borom bi ne nga gis ñu bari ci ñoom gisu bët mu ne wal xitaabu am li kulli man yasma wa yaral maana mu ne wax ji yàlla wax du yahudiyee ko moom de nee na wax ji dafa matale ñépp la ko yàlla wax képp koo xam ne yaa ngi dégg yaa ngi gis maana mu ne anna xaaluhum ñii seen melokaan la tuxfa ala ahad zawil basira kenn la nëbbuwul ñépp a ko gis waaw ñun ñi dund Sénégal xam nañ ne tey fii nu toll ci dëkk bi nit ñi mbon lañ gën a bëgg ak baax ah mbon lañ gën a bëgg ak baax wala mbaax lañ gën a bëgg ak mbon mbon xoolal col gu xoolal col col gu mat bu yiw ci jigéen ñi ak col col gu bon ban lañ gën a bëgg tey jii boo fi tegoon ay jiin jiin ay jiin tubéy nga teg ay sër nga teg 30 tubéy nga teg benn sër nga ni gan mooy njëkk a jeex ban mooy njëkk a jeex dama leen laaj ah tubéy ñooy njëkk a jeex lu tax ah boo fi tegoon ay ay budi wala ay baa nga teg fi ay sër nga ni bismillah ban mooy njëkk a jeex bàyyi ak budi yi ñooy njëkk a jeex parce que nit ñi mbon lañ gën a bëgg ak mbaax loolu ci lépp nga koy natt ci lépp mbon lañ gën a bëgg waaw moo tax borom bi ne wa tara kasiran minhum nga gis ñu bari ci ñoom naafiq yooyu yusaari'una dañuy gaawtu fil ismi ci bàkkaar al ismu kullu daarin mooy lépp luy lor nit wa faasit lépp luy yàq loolu ak mbon la wa huwa loolu nag ma xaramahu llahu mooy li yàlla araamal taala min itiqaad aw qawl aw amal wal udwan azulm bu ñu bëggee xam lan mooy bàkkaar lii gaa yi di gaawtu tey di ko bëgg di ko def mooy lépp loo xam ne daf lay lor yow wala tey ci suba RFM ah RFM tey bi may xëy huit heures RFM journal bi ci oto laa nekk maa ngi dégg benn benn lan congrès la xaw ma benn colloque xaw ma benn waxtaan boo xam ne boroom xam-xam yi ñoo koy doon def ci xeesal ñu ne Sénégal jigéen ñi bu dee téeméer lañ juróom-ñaar fukk ñi ak quelque dañuy xeesal léegi sax ñu ne góor ñi dañuy xeesal léegi xeesal moom yamatul jigéen mais góor ñi sax dañuy xeesal ah Sénégal ñu ne ji téeméeri jigéen yoo jël juróom-ñaar fukk yi ak nangam dañuy xeesal yamatul ci ñoom journaliste yi ne góor ñi sax léegi dañuy xeesal après ñu jox docteur bi docteur bi di wax danger yi nekk ci xeesal ni mu ni mu la nar a indil ëllëg waaw léegi lu tax nit ñi xam loolu ba pare di ko def léegi waxatuma la ñu yem ci góor ñi jigéen ñi mais góor ñi xeesal moo tax gis nga artistes yi dalay leer nga gis kenn télé mu leer na kii day xeesal parce que peau bi ni mu mel nii ak yaramam bi ni mu mel nii lii du yaramu góor ah ba ci borom xam-xam yi da ngay gis ay sëriñ ñoo xam dañuy xeesal lu ngeen leen gis ci dara bi billaahi tar mu leer la ne kii day xesal parce que kilifa diine la waaw produit xeesal yi Hmm. waaw waaw gis nga xool loolu lu mu koy doyee day diw ji am na ci ñenn kilifa diine xam nga tax ñu koy def dañu bëgg ñu ne dañoo julli ba leer ñu seen leer la ñuy yokk fekk dañu xeesal ay shérif yi xeesal télé bi nii da ngay gis nit rek nga xam ne kii day laal du sax sonn waaw léegi nag loolu ñu ne diine la nga gis nit ñoo xam ne mbon mbon moom amul xaar léegi léegi dem ak dikk ñëpp ñëw def ko waaw demal ci benn ngénte rek ñu teg musique musique ci koor gi laa wax ni koor gi laa wax de waxuma budul koor de musique bi rëkk ba ñu ndogu nga gis maire yëpp a toogoon yëpp dañuy ñëw dugg ci biir tànt bi di fecc naan mag buur la lu mu def yàlla baal ko ko waxuma laag ne xale yu ndaw yi waaw kon alxuraan dafa nekk téere boo xam ne lu mu nu wax ñu teg ci bët ndax lu tax loolu mooy yàlla mooy wax ku nu bind yàlla ku wax wax ji yàlla kon warul am wuute moo tax yàlla ni nga gis naa féq yi lu ëpp ci ñoom su mbon ñëwee da ngay gis ñu gaawtu dañuy mel ne weñ ñu gis lem xam nga weñ bu gisee lem ndeysaan ndax mës ngeen gis weñ bu dee ci lem ah yéen ku mës a gis fii weñ bu dee ci lem mës ngeen ko gis du jeex weñ boobu dee ci lem bi xam nga lu koy indi woon ñëwuloon pour dee de lu koy indi woon da doon lekk si bépp weñ boo gis mu dugg ci suukar dee wala mu dugg ci lem dee wala mu dugg ci lekk dee loolu dee indiw ko woon xam nga lu ko indi woon da doon lekk si waaye xamul nu mu ciy tegee mu ñëw dugg ca digg ba lee dee loolu mooy naafiq day ñëw rek na puncum su fa fekkee ay moroomam ñu toog fa nekk ay gunóor di yàq su fa fekkee ay jullit yu seen diine leer ñu ne ko aca mu jël dàllam daw te naan man sax man sax xaw ma lu ma fi ni maa tooj sama bopp su ma xamoon ne yéen la sax du ma fi ñëw gars yi ne ko aca rek aca aca jël say dàll ana ma du fi toog mu ngoog sunu borom ne du ñu yem rek ci gaawtu ci bàkkaar waaye wal udwaan ak tooñ mu ne waaw abdullah ibnu saba jërëjëf mbokk bi fàttali na ma turu ponkalu chia bi ngi doon wax sax nga xam ne moo créé chia ci islam muy abdullah ibnu saba al yahudi mu ne lii mu doon doon wax sànq ci gaawtu ci bàkkaar mu ne bàkkaar boobu mooy lépp loo xam ne day lor wala mu nekk lu yàq te yàlla araamal ko ci pas-pas gis ngeen ndeke même pas-pas suñ ne pas-pas mooy ngëm même nit dina am ngëm-ngëm gu yàqu wala mu nekk wax wax ju baaxul wala mu nekk tooñ zulm yii yépp ism la mooy bàkkaar fil ismi wal udwaan dañuy gaawtu ci bàkkaar ak tooñ waaw mooy seen métier ki nga xam ne dafa bàyyi ba nit ñi di nelaw mu takk ay rajo di yuux xoolal bàkkaar yooyu ak tooñ googu muy tooñ julliti nit ñi woor ba ngoon war a nelaw yi yuux di yuux fukki fan yi mujj yi moom guddi gu nekk nga dégg ay yuux di yuux di yuux bu bët set di fecc ak sabar yeeg ndënd yeeg man damay jaaxle ma ni nii bu fekkee dañu bëgg jaamu yàlla kay dëgg-dëgg foofu noonu nan fa julli nan julli wala njàng alxuraan mii déedéet ay woy yoo xam ne ma anzal allahu biha min sultaan loolu laa doon wax keroog guddi laylatul qadr le 27 mas ngaa gis li nekk jàkk ah taraqa yoneen yéeg na sallallahu alayhi wa sallam màkka la juddoo madina est-ce que bisu le bisu bisu bisu bisu laylatul qadr yonent bi moo ko moom est-ce que moo dañoo war a wax yonent bi màkka la juddoo bisu laylatul qadr bisu laylatul qadr lan la bisu ibaada la bisu julli beneen bi mooy nit ñi dañ war di xal di wax di laaj waaw laylatul qadr nan la ko yonent bi doon defee yaa Aysa moo ko nettali nee na yonent bi fukki fan yu mujj sadd mi zara day yeew tubéyam soo déggee ñu ne day sentiree tubéyam loolu loo ciy dégg waa may xel mooy du fi sëy ay xasa ah la mu yee xale yi yee gone yi yee jigéen ñi yee ñëpp ah yaa lay la ñu dundal guddi gi waaw jaamu yàlla julli zikr jàng alxuraan yow tamit bu fekkee loolu nga bëgg dajale nga mbooloo mi ba mu ñëw bismillah julli leen ku sonn ah rekile ci ginnaaw jël kaamilam boo sonnee nga def ay askar boo sonnee nga jugaat dem jàppi ñëwaat duggaat ci mbooloo mi maanaa loolu la waaye yor say sabar di tëgg ah kuy jullit na ci tàcc kuy jullit na ci tàcc ba bët set rek kuy jullit na ci yëngu ba bët set loolu yomb na di kese ñuy fecc rek ba bët set kuy jullit na ci yëngu kese non vraiment c'est difficile borom bi nee na yemuñ ci gaawtu ci bàkkaar ñoom gaa yi yemuñ ci de yemuñ ci tooñ waaye wa aklihimu suxt dañuy lekk neexal dañ leen di ger ger waaw gis nga ger mooy lekk neexal ngeen koy wax ci tubaab corruption tey ci àddina bi tey ci Sénégal daanaka moo tax Sénégal mënut a nekk Sénégal waaw ci lekk ger ak wurit tey dëkk bi yépp foo dugg lu dul ku yàlla gërëm day lekk ger ger ah alandi ger ger na wetee pulaar kaaw njeenaari man dégg naa tukulóor ànd ak njeenaari ah konoon kaaw njeenaari so neɗɗo tottaaka huunde tan liggotaako suñ la joxul dara rek doo liggéey waaw boo ñu boo gisee gars yi rek ñuulal kanam man wàcc naa gars yi ne la non xaalal tuuti rek waaye may ñu rek après dañ lay jox njëgu ataaya nga ne na gaaw bopp waaw gars yi déposé ay kayit nga ni ba suba benn waaye ne la non man wax dëgg yàlla dama war a tukki tey wala damay def examen suba tey laa ko soxla nga ne ko ñëwal géew joxeel dara boog waaw mu boxoñ benn dix mille wala benn vingt mille wala benn deux mille teg sa loxo waaw ndeysaan allahu akbar ci koor gi rek dama dugg oto fii nii rek arajaal mbaay taxi bi dafa viré rek policier bi droité ko mu génnee ma gis ko mu policier bi ne ko laaj ko laaj ko laaj ko mu joxe policier bi romb ñu dam tax yu fële mu jël permis bi waa ji chauffeur bi da mu ngi ci kanam mu jël permis bi di jël benn téeméer di ko ci dugal ma ne koor gi yàqu na de koor gi yàqu na maa ngi ci ginnaaw ma ne ko koor gi yàqu na waaw mu ne koor gi du ko yàq ma ne mille francs yi di dem mu ne mais nu ñuy def waaw lu day kayit yu mat rek wute kayit yu mat bu la waaj jàppee nga yor sa kayit yu mat du fa nekk di geraate waaye boo waree dawal oto même bu see kayit mat rek dañ lay jàpp loolu kay am naa ci firnde sama benn xarit day dawal taxi dañ ko jàpp waa ji laaj ko lépp mu joxe waa ji ne ko safaara bés bi daf toj mu ne ko bindal waa ji ne ko binduma mu ne ko da ngay bind nag parce que man damay xëy da nga may jox samay pièces rek tëj bunt bi génn taxaw waa ji xam ne kii caaxaanul mu ne ko yoruma kayit demal police ba demee ñu bindal la waa ji droité oto bi dem police ñëw taxaw bëgg a fay ñu ne ko këyit amul ba pare këyit jeex na demal waa ji la jàpp bindal la wala nga dem service d'hygiène hôpital Roi Baudouin mu taal taxi bi dem ba Roi Baudouin ñëw ne leen damaa ñëw pour fay bindal leen ma ñu ne ko gaa yaa ngi ci terrain bi benn waay nag saa waay fu ñu la jàppee mu ne ko corniche mu ne ko del dama nga jëli sa këyit nga dem liggéeyi demal nga jëli say këyit nga liggéeyi bu ñu sonal xam nga fii li fi ne mu ñëw droit police bi ne ko ñàkk fulla ñëwaat nga 2000 nga may jox soo ma ko joxul 2000 doolaal këyit waa ji xam ne dafa nar a ñeendu daal koy jox 2000 yi jël ay permis dem wala loolu li gën a garaaw ci corruption benn waaye xajam daa dee xaj mu jël xaj bi dem suur ko ci armée lu jullit yi te xam ngeen ne xaj léppam sobe la jullit ñi mer dëkk ba di riir di tàkk waa ji buur bi juge bi woolu ko bi muy dem mu yóbbaale deux millions mu ñëw juge bi ne ko yow yow da nga dof wala yow da nga may rab wala yow lan nga gis da nga jommi ba nga jël sa xaj di ko suul ci armée lu jullit yi waaw loolu lañ bëgg xam mu ne ko monsieur le juge juge bi ne ko ah mu ne ko xaj bi bi muy dee dafa defoon testament xam ngeen testament ah xam ngeen testament mooy booy dee li ngay bind sa ginnaaw pour ñu def ko mu ne xaj bi bi muy waaj a dee dafa def testament ñaar mu ne ban mu ne xaj bi nee na yow juge bi nañ la jox deux millions mu ne man mu ne waaw yow monsieur le juge deux millions mu ngi nii indi naa ko mu ne ñaareel bi lan la mu ne nañ ko suul ci armée lu jullit yi mu ne ndeys rek juge bi ne ndeysaan xaj boobu ci ci famille asxaabul kahf la bokk raxim xaj boobu mooy maamam xaj xaj bu baax lañ famille bu baax lañ indi deux millions yi nga dem daa jël deux millions yi génn romb nit ñi di ree nit ñi ne waaw kii kii kii kii fu mu jëm mu ne sama kër dem ñibbi pour wax leen tey corruption fu mu toll ci àdduna bi fu mu toll tey ci biir dëkk bii xoolal fépp rawatina nag ñun jullit yi fii ñun jullit yi foo dugg ci biir dëkk bi ci kër diine yi ci liggéeyukaay yi fépp foog nga neexle foog nga neexle foog nga neexle waaw foog nga neexle soo neexle rek li nga bëgg am nga am ko boo neexlewul ñu ne la toppal rang bi toppal rang bi wala nga def sama morom mi niñ def waaw rek soo defee sama morom mi niñ def doo topp rang soo ko deful nga yendu ci rang bi nit ñi ñëw rek di leen romb rang bi du mus a bouger te waa jaa ngi liggéey rek kayit yaa ngi jalu te kayit duñ gis fu mu jóge loolu diine la ci lépp dañuy lekk neexal loolu fu mu jóge ci yahud yi ci jikkoy yahud la tey nag jullit ñi roy nañ leen ci ba raw leen mu ngoog wa aklihim dañuy lekk as suxt mooy ger neexal almaal alal alxaram bu aram kar rishwa lu mel ne ger war riba ak riba wa ma yaxuzunahu min maal ak li nga xam ne dañ koy jël ci alal muqaabil taxriifil kalima wa taawilihi lu tax ñuy jël alal ji c'est parce que dañuy jël waxi yàlla di ko changer ak di ko firee nu mu ko waxulee gis nga ba ci borom xam-xam yi da nga gis borom xam-xam boo xam ne conférence lay ñëw conférence weeru koor sawaay ñu tànt lu toll ne ab stade jigéen ñi xeesal ba foo ko takk meesu gerefaasu ñii pirig ñii yaramu neen bi xàppati xóotal yi ween yi ci biti ustaas bi toog xam nga lu muy wax
seyduna muhammad ba muy dem ca yàlla
yooyu la fay nekkee ah
yonent bi ba muy faatu walla ba muy dem kaw asamaan jibril la àndal malaaka yi escorté ko yooyu la fay nekkee ba conférence bi jeex ah ñu jox ko enveloppe trois cent mille mu dugal ci poosam dem dem ndogu ci soo nee leen waaw yéen lu tax yéen waxu leen nit ñi dëgg bi ñu ne la ah kon xaalis du génn xaalis bi du génn di sooy conférence ngay wax nit ñi dëgg duñ génne dara soo bëggee xaalis bi ñëw da nga leen di jay nga ñëw fekk tribune bi ñëpp weex nga ne ak sa jigéen ñi yonent yi waa ngoog cëm ñu ñëw mbokki Khadija jigéen ñi Aysa yaa ngoog rek taawali xaalis bi commencé ñëw waaw ñu ngi nii ñu ñëw mën góor jërëjëf fay waaw ku nekk jaagar jaagar gis ki ci gën a xóot garaam bu araam muy njëkk a jóg gàddu mille francs yi gàddu posetam cakkar cakkar yi ñëw teg ñeneen ñi topp ci ginnaaw njëkkante yi commencé léegi loolu la ñuy def di lekk loolu mooy lekk ger nga dajeeg ay jullit mu leer la ne ñii li ñu nekkee dara baaxu ci li ñu sol dara baaxu ci doo wax ci loolu ah da nga ñëwoon pour wax nit ñi dëgg yàlla bi da nga ñëwoon pour am na ñoo xam ne sax dañu naan la bàyyee nañ la thème bi thème bi indil thème bu la neex parce que xam nañ ne buñ ne lay waxal ci benn thème thème yar yi yénn dañ naan la indil indil thème thème bu indi baax na ko defee waaw en attendant mën ngaa jàpp ci lii grand boubou bi booy ñëw moom ngay sol waaw yow bu fekkee ne da ngay def conférence di fayeeku ñu solo la grand boubou jënd la marakis jënd la mbax ne xam nga ne doo wax dëgg nit ñi wala fi ne nañ ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa loolu moo tax suñu sëriñ si dootuñu wax nit ñi diine ah bu dee taalibe bi jaay jaay baar te bu ma xewlee samay jàng moom moo yor baas yi moo yor boisson bi moo yor tib yi duma ko musa wax ne li ngay liggéey daa bon jamais duma ko wax waaw may bàyyi rek muy indi suñu waxee rek mu ne kooku xawma ci moom loolu lu baax laa xam ci moom suñu jàng yi moom moo yor baas yi moom moo yor nangam moo yor nangam moo tax foog nu yeewu nangoo déglu Qur'an xam ne Alqur'an lim nuy wax dafa bëgg nu yeewu waaw yemuñ ci gaawtu ci bakkaar ak tooñ waaye wa aklihimu suxt dañuy lekk neexal te mooy ger yàlla ne la bi sa bon na maa kaanu yaamaluuna la ñu nekk di ko jëf gaawtu ci bakkaar baaxul tooñ baaxul di lekk ger baaxul moo tax yàlla ne la bi sa aka bon laam bi laamul xasam la laam bi ci bi sa la giñ naa ci sama màggaay man yàlla bi sa aka bon maakaanu la ñu nekke woon yaamalu na di ko jëf ñoom gaa yooyu xolal borom bi ndeysaan bi mu waxee lii la ba pare xam nga ñii ci mbon lañ nekk mu ne lawlaa yanhaahum lu taxoon terewu leen arrabbaaniyuun sëriñ sa li taxoon ñi bi ñuy def lu bon sëriñ si waxuñ ci baatu arrabbaaniyuun li muy tekk mooy sëriñ mooy boroom xam-xam mooy kilifa diine mooy kilifa kilifa yi mooy arrabbaaniyuun boroom xam-xam yi nga xam ne yàlla lañ jàng ay mbiram ba géeju ci gis nga walawlaa lawlaa lu tere woon yanhaahum tere leen ne leen lii ngeen di def baaxul te mooy gaawtu di dem ci mbon dugg ci bakkaar di tooñ di lekk ger suñ leen waxale yàlla ngeen bañ suñ leen woowee ci diine ngeen lànk lan moo tere woon boroom xam-xam ya ba ñu gisee ñii nekk ci mbon gu bon gii ñu génn leen ci moo tax gis nga borom xam-xam dafa war a wax dalil borom xam-xam dafa war a aaya baa ngi noonu lawla lu tere woon yanhaahum tere leen arabbaaniyuuna sëriñ sa wal ahbaar ak labbe ya bu fekkee ca chrétien ya la labbe yi tere bu dee ci jullit ñi arabbaaniyuuna tere leen an qawlihim ci wax yi ñuy wax al ismu bakkaar wax yu bon yi ñuy wax ci télé yi wax yu bon yi ñuy wax ci rajo yi wax yu